mooy Abu Bilal benn Pazi Abu Bilal ñaari naara Dubaay ya wazalika la walaka la turaka la lam ala ahlakum dilana salaam aleykum wa rahmatullah walakum walakum naam ana karam zala hada fala la jahal yani ana hada ala السلام عليكم وليس على كل لأن عربي عربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجعل من السلام على tey faalu quoi. voilà faala noonu ala trale la salaam wa rahmatulah na Sénégalais. salaamaaleykum wa rahmatulah Sénégal. هنا ما في فلوس نحن نحن في عنا السنغال وذلك العولي قد زرق على قد على سوري قد سنجري te da sol dara halitori kalen bari bari wallahi wallahi lazani wallahi wallahi zani wallahi zani انا رئيس كثير الفلوس هاك الشارع الشارع الشارع ما في فلوس نعم كان عايز ابو بلال ولا انا مصري صقير عايز حط حجيني انا من تركي كان حط كده على عمل انا خالص لك لو انا كوني كفاره جاني صدر عليك لو انا غنى عبد اللمبه hoɗe haytetoro mor koɗe haytede asis ndiaye gaston meg hoɗe haytede recruteur السلام عليكم بقي ولا جعدر لنا الدرو على فضع ما يجعل ما يعدرو كينا فانا كنا عرب السعوديت عمنا مبقى دبي امنا قالس خيخ بنا خمنا مو عم فوفو تشسري قمنا قبرنا ما ابو سري دفع تحاو تمنا دفع راي كتلكو قمنا دفع خيخ بور قال بالنو اخاك يلا فضو بعدنا ñun nag xam nañ ne ñu ngi commencé jeex benn par benn ñoom am nañu doole kaw doole suuf ay yàlla moo leen po doole ñu ne nag dem ci réewu jullit yi ñu sàkku ndimbale ñi xam ne ñooy bëre te amuñu komba wallahi ku ci mel ne nees xam nga nees. xam nga eh. waaw naka nees. ma fi fulus. waaw soxla nañu ko nañ ko utile lacry lacrymogène ak kalachnikov di ko fay bëccëg bu nekk ak ñeenti millions ak yu tegal wala xaalis wu rotale la anu rotala. alaka ba ba ba booy. baaboy ya fulus ma fi fulus ala ken nee na baaboy bu tamit mun nañ ko dénk mbirum togg bi wala jadaratu la naan fuur ala comme que lamb bi doxatul léegi ana kal wula kasala ala kadal balla gay wala kal balla gay balla gay wala ma fi abel فلوس ما في فلوس انا ولا لا صح انا بالقيد انا والفرع ترى يكني على ضرب بالقيد على ضرب في العذر بالقيد مستني لا يحضروا الاعلان شو اعرف انا بالقيد قد عاد عاد سعد عاد روتر انا كلام مدمر روتر انا كلام مدمر انا كلام مدمر خنسري بالقيد ما ظلم انا قريته xare a cuura xañi xay bërir xare sin ko doora maam wax na ne nee na Balla Gaye mën na ci moom jox ko fukki million bëccëg bu nekk waaye day dem ba ci biir fi nga xam ne fa la lacrymogène di nekk mu rayanteeg ñoom ah loolu yëpp soxla na ko bu fekkee ne bés bu nekk dem na rey fanweeri ah noonu bu ko indee ñu compter fanweeri bopp bopp bu nekk 10 millions la ba Balla Gaye ana rais kasiran fulus ana kon Balla Gaye ana rais kasiran fulus شعرت دوبل انا انا كنت دوبل ساعه دوبل في عندنا كده Balla Gaye ولا حضرنا لما نشوف عندنا نشوف سالنا وكويجي انا كنت كنت تايزن انا بس انا بس انا خد اساتس انا انا الفول انا انا الفول انا على كل وتر انا كان سنه حول حاجه سنه خيدو seen xaritu ma ne moom daal xam nga leen la soo gisee maag moom ñuy xule ba tey dafa wax ne moom mënul ci mbër boo xam ne ku indi bopp bu fay bopp ñaari million ma ne ko bul wax loolu ndax ñooñu du ñu baree rek kottu kottu rey am na kottu kii am na ñoom kottu rek kottu rey nees ñu ngi ko woo kottu rey. naam maa fi fulus. wala kan Tidiane Faye wala kan Tidiane Faye ala ko la gendarmerie Tidiane Faye wala ma ne ko gendarmerie la ana wulu ko. ay ay ay kan ma ne Tidiane Faye. ah d'accord d'accord. ah ça kan ma ne. d'accord ana wulu la naan si. d'accord léegi daal Gaston Mbengue. ñu ngi koy woo. لنيكولاي على نيكولاي نيكولاي ولا كاسودي انا ولا نيكولاي انا كاسودي لا لا لا لا والله نيكولاي لا لا jóg jóg na moo dafa yaakaar ne dama jël xaalis bi di ko noos wallahi jëlul dara wax naa ko Nicolas mu ngi ci kaso bi ñu ngi ko woo pour mu utal ñu mbër Gaston Mbengue Aziz Ndiaye ñoom ñëpp ku soxla mbër rek na ñëw mbër bu bëgg ñëw na daw jogante naa na fiixu naa wa taxif waaye nekkal Lamine Samba naa ko naa na fiixu naa wa taxif Thierno Ndiaye. voilà Thierno Ndiaye nga Ndiaye. nga eh, Ndiaye eh, ñoom nee eh, nañu. Samba nee nañu. dañu bëgg ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy reporter lamb yi ku ci mel ne nga Ndiaye Thierno Ndiaye ak Lamine Samba Malé Junior Ndiaye ñu ñëw ci guerre bi di reporter guerre bi bu Balla Gaye dàq jee ñaari rebel kott ko ñu ne wala xajara Balla Gaye wala si adara am na daara di ko reporter ko nuñ koy defee waaye ñoom bu leen bal dalee ci nopp bal bu nekk ñaari million la. Mhm. ma day Lamine Samba day daal mhm. am Lamine Samba day dem. xaalis dafa doxal Jadara Lamine Samba. wallaahi day dem. attan na dem yóbbu ay jamono Lamine Samba ala Jadara Lamine Samba. wallaahi day dem waaye nag Lamine Samba ala Jadara. ana ka Salbe Ndao. Salbe Ndao. wala bu fekkee ne gis ah, ngeen Salbe mu seetal leen geeru Égypte bi geeru Syrie bi kañ lay jeex. parce que comme que day gis lamb guy jeex war a mën a xam guerre kan lay jeex ak kañ la commencé. waaza kale wala kan tara kale. كذلك الحوتيتي انا كالبلك ام سيل وجه حتري ولا من انا ام سيل كان حيصدق دوت على كالولا على كالولا صار خد تاع تاع ولا جمل زعر ولا انا حنصد ولا كالولا صار خد ولا كان طريق كالولا صار خد انا صار خد انا ولا ولا كالولا انا ولا ولا صار خد انا ولا كالولا انا ولا ولا انا ولا ولا